Lamine Samba moom Lamine Samba nag niñ koy defee saa su ne eh, dañuy am mbégte di ko dalal fii eh, ci info du matin Lamine ñu ngi lay ziar ci aljuma ji. ma sœur maa ngi lay delloo ziar. naka eh, suba si mbaa lépp jàmm. waaw ñu ngi sant yàlla bu wér a wér. alhamdulilah sama gars yi naa leen. yow vrai mère sedd rey nga. yow yaay jaan yooyu di dund ci suuf. maanaam da lay matt ba pare duggaat ci suuf ngay seet jaan ji ci kaw fekk mi ngi ci suuf il est très dangereux sa boss nit ñi ñi ngi lay commencé di découvrir ndànk-ndànk mais ñun ñi nga xamante ni nag ñun yàgg nañu ak yow dara duñu bett ci yow te Cheikh rek da ciy boole moom pat lay def. non xam lu tax mu naan pat. xam lu tax mu naan pat. il n'a pas d'argument xam ne ni un eh, de ces quatre matières. dinaa toj ya dafa laa jëm. baal ko dimbali ko. jour boobu ngay accu plateau info matin dem ci sa journal yi maa ngi nii di gis yow ni ngay accoo. bàyyi naa la bàyyi naa la guy. kon yëgoo li xew jënd nañ glace démb. bu sedd guy. macha allah alhamdulilah. booy làqu na làqu ci njàmbaar booy ñaan na nga ñaan kuy maye. Hmm. xarum juróom-ñaari bët ak juróom-ñaari béjjën. Hmm. su mbëkkulit raglu na. macha allah <laughs> ça veut dire quoi ça. <laughs> ah bàyyi ko mu ko ça veut dire ma ne ça veut dire déglu ma bu baax ça veut dire. da nga ne démb lan dama dama ma ne. booy làqu na nga làqu. non non non glace gi la jënd glace. tojol yax bi glace. waaw bu tàngee nga jënd glace. seetlu def ko mooy la loolu. ginnaaw ay jàmm jàmm. ginnaaw ay jàmm jàmm ci la lépp jàmm ci la lépp xaj. non man guy gi suma doom la. Hmm. il n'est pas un lutteur pour moi. sérieusement man suma doom la. Mhm. koo xam ne mi ngi commencé trente cinq mille francs may gis. Mhm. ba premier bi ñu koy fay sept millions digganteem ak euh, euh, Zos. Mhm. man maa ko ne dama jël combat bi. ndeysaan. kon kooku suma doom la seytaane mu bëri doole na souvent seytaane day jaar foo xamante ni war waaw waru faa jaar mu ngi noonu mais sérieusement ñoom démb jënd nañ glace quoi yàlla ñeenti mbuusu glace lañ jël yàlla jàmm yàgg la li ma naroon yëpp ak kii nu mu tudd pour baisser tension bi damay indi ministre des sports ñu waxtaanee wàllu la très bien bàyyi li ma naroon yëpp. très bien loolu baax na gannaaw ay jàmm la. Moussa kaay moo xam la jaar de xoolal mu tàkkee rek la bëgg. <laughs> non <laughs> amee de. <laughs> Aca Lamine ñu dem ci yenn kaay yi doore koog l'observateur. ndeysaan dafa def jàngat ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy aji fajkat yi ñu leen di wax ay docteur ci ni nit ñi di génnee àdduna ku ñuy wax tàkko baas nee na xaw tuut mu takkali kook sagom. Ibrahima Fall médecin nee na moom bëggatul sax métier mi ndax lim ciy gis El Hadji Omar Samb médecin moom nee na dafa jooya jooya jooya jooy ci cas yi nga xamante ni moom la gis ak ni nga xamante ni noonu la nit ñi doon génnee àdduna euh, ki nga xamante ni nii moom moo def accident ba faat ñetti doomi aadama fële ca Yoff chauffeur bi wax na nee na moom mën dem na ba benn moment sax mënatul woon téye li nga xamante ni moom mooy oto bi euh, trajectoire tey euh, l'observateur dafa dem seeti Abdoulaye Kalgoor John ku am doole la ca Ndingler euh, bëre gi mu doon bëre ak jàpp gi nga xamante ni moom la jàppale woon président Macky Sall Aïda Samb yaa ko leen ma ma ñëw après fin de match lay doon ok euh, dikk ak ñun ci sénégalais yi nga xamante ni ñi ngi dugg ñi ngi dund ci ndóol ndóol bu miti miti ci téeméeri sénégalais yoo gis euh, fanweeri ak juróom-ñaar ak yi topp euh, dañuy dund ci ndóol ñaari téeméer par bés moom la ñuy dundee noonu la ñu ko Vox Populi xamale enquête yéen kaay ne ndax jar naa taxawal gouvernement du national bi nga xamante ni dañuy woo parti yeeg ñëpp sumb benn gouvernement boo xamante ni nii ñëpp dañ ciy bokk nga gis nii euh, Sonko bi nga xam ne xeer mu mu am rek Macky Sall la koy sànni ñoom ñaar ñu nuyonte euh, waaye nuyonte Covid 19 lañ nuyonte euh, le quotidien yéen kaay dikk ak ñun ca Mali ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy njiitu réew ya fa demoon pour wut fa jàmm ci diggante IBK ak Imam Dicko waaye nag kenn ku ci nekk ci ñoom ñaar ñooñu fa nga ŋànk yàbbiwuloo ko ba tax na joxaat nañ leen rendez-vous le 27 juillet pour taxawal fa benn extraordinaire le témoin yi kaay dikk ak ñun ci coronavirus bi nga xam ni bàyyiwul kenn bàyyiwul fenn ci lenn euh, ci ëttu attekaay yi lu dugg euh, témoin ne ci jamono ji nga xamante ni nii nag mooy euh, jamono yi coronavirus avocats yi ñoom it jot nañ seen wàll ci nar wi tur Euh, prix bi nga xamante ni boobu ak léegi ñi ngi wax jox nañ ko Diouf Sarr jox nañ ko Diouf Sarr le témoin yéen kaay nee na Eva Marie Coll Seck daf ko mës a euh, bañ le témoin daane rek euh, waxtaan wi nga xamante ni dafa doxoon ci diggante aji àttekat yi nga xamante ni dañoo ŋànk ab grève ak nguur gi nga xamante ni jënd nañ glace ci fànn woowu it arrière loolu la ñu laas quotidien xamal Sud Quotidien dikk ak ñun ci li nga xamante ne ni moom mooy rapport bi lëmb réew mi Cour des comptes ak ni nga xamante nii noonu la ko Sud Quotidien jàngatee euh, source a dikk ak ñun euh, ci tong-tong ba nga xamante ni ni am na ca mairie euh, bu Golf Sud nee nañu madame Aïda Sow Diawara këram gaa ngay tàkk li ko waral mooy ñaari baay yi nga xamante ni doomam yor na ko waaye Aïda saw Diawara weddi na ko ba mu mat sëk ci biir source a les échos yéen kaay dikk ak ñun ci ñi nga xamante ne nii yàkkati nañu lu mel ni xamee kii di Abdoulaye Diouf ak Macky Sall mi nga xamante ni moom it la ñu wuti ca Mali Mali mujjuñu ko am euh, record yéene kaay ne benn xeer buy jam ñaari picc moo nar a dal ki nga xamante ne nii moom mooy Gana Gueye ndax day jëlaat euh, doublé euh, coupe ak championnat ndax final bi tey Paris Saint-Germain la ak Saint-Étienne bu 19h tegee 10 minutes euh, su stade yéen kayit foofu la dikk ak ñun mu ne gànn mi ngi teg bëtam ci ñaareelu doublé booy Malick Thiandoum la ñu def ci xëpp mu njëkk suñu làmb kii sama booy la moom mu wax ci saison 2020 2021 xoolal làmb mi ñu nag comme lañ set te mu tontu <laughs> waaye sama waay la nag xam nga wax na ci saison deux mille vingt deux mille vingt ant un ni mu nar a tàngee Boy Niang ak Tapha Tine Balla ak Gris Bordeaux su dellu ci l'observateur yéene kaay ah? li nga xamante ni nii ku doon laati faali ngoye ngi doon wër doon wër di dem màkk ba dajeeg yonent bi ay da xaaral ma ñëw euh, kii dafa def ak euh, jabaram fukki at ak ñeent ñuy sëy jabar ji invité ko ci benn restaurant ne ko li ñuy sëy yëpp man mosuma laa nopp sama ancien far bi laa nopp xam nga waa lu mu def karabit la ko génnee la muy ancien <laughs> ancien yooyu ok kii ci taabal ji am na koo xam ni moom lay wër sànni na mbaal nag takkal sa fit te dem man nag du ma tudd tur du ma tur te du Mamadou Ndiaye du yow du sawaay. non da nga naan du Chérif du yow te ñeent la. du yow. voilà du Mamadou du Ibou Diouf. Chérif ngi ba tas na. Chérif mi tamit est-ce que jub na. mi ngi rafetlu da nga bëgg yëpp. non Aïda Samb Aïda Samb na Aïda Samb nee na xelam ak xalaatam yëpp mooy mu takk jabar waaye. mu takk wala ñu takk eh, ko ñu takk ko waaye eh, timidité am xaw ma naan. kersa gi quoi gi moo tax moom carrière am mënta dem noonu léegi dafa am koo xamante ni kii benn bés ay resam bi ñëw na fii booy bi tombeek mu fayeeku booy bi yëkkati cent mille jox ma ne ma demal waxal ma Aida Samb ma ne ko eh ma yëgal la ñaata <laughs> te yéen ñii taabal ji mun ngeen ko témoigner. ah Mamadou Ndiaye moom mooy manager Serigne Dia. waaw léegi xam nga lu lay wër. <laughs> pour mot a jeex bi affaire bi. muy noonu Lamine Samba. Eh, eh, ñu ngi lay ñu ngi lay sant di la gërëm saa yoo ñëwee rek ni ma koy waxee. kii nag soo ci duggee di dugg ci rapitu Samba Law <laughs> ndax entraîné guddi ak bëccëg suba ak ngoon te am na ñoo xamante ni ñi ngi koy wër seen bal nee na mëy maa wax lii man ñu ñaanal la un très bon week-end mardi mardi inchallah balaa may dee Cheikh ngay wax bu naan ah, Aïda moom du ma ko may Cheikh quoi xam nga sama mbokk Jolof la maa ko war a maye yow ko gën a gëm non ma ko may Jaaw parce que Jaaw jubut Serif yow bi nga gisee ni Aïda Samb lañ teg tey à la une l'observateur si nga dem wuti grand bu teg. <laughs> jërëjëf jërëjëf sama jigéen la maa koy maye ñu wax. jërëjëf Lamine Samba ñu. mais maa ngi leen di bëgg bu wér ah. kontaan nañ ci maa ngi leen di mais euh, dafa am leen loo xam ne il faut tam ñu bàyyi ci xel ngeen baal ma pour une minute. Mhm. sàcc yaa ngi ñuy bëgg a rey. dëgg la. ci bérébu jaayukaayu xar yi. Mhm. te démb ñun dañu amoon benn euh, kii boo xamante ni arme boo xam ni du du pistolet quoi mooy kii yooyu. Mm-hmm. teaser xaw ma déedéet loolu ñu def kër xaw ma. waaw waaw mm-hmm. démb sama benn booy da ko yor police ñëw nangu ko jàpp mais dëgg la. Mm-hmm. mais waxuñu kenn nañ agressé kenn parce que benn femme bu nekk foofu di jaay xaar. dañoo sàcc cinq laa duma. Ah. xam nga léegi nag damay damay sàkku ci police ñuy wër ci fi nga xamante ni nii moom mooy. dara bérébu jaayukaay xar yi ci ci. ci euh, ci semaine bu mujj bi. lu leen wàññi dara. ñu ngi dimbale defal nañ mm-hmm. ñu lumière. ñu ngi ñuy may ndox ñu ngi ñuy may yëpp mais daal suñu jur gi daal ñu bañ leen a sax. jërëjëf Lamine Samba ñu sant ko bu baax di ko. gërëm sa xaalisu xar yi réer <laughs> di ko daje mardi incha allah très bon léegi léegi dañu dem ci TIC ak euh, Nouveau Média. naa ne da am melokaan. femme wax na lu ñaaw loo xamante ne. xamoo lu ma la bëgg a mu ne fu ma jaxaani xëy be paase xëy waay. man doo les dofs de la scène vous reviennent plus fous que jamais le trio magique le trio de choc qui explose les réseaux sociaux trois véritables phénomènes les meilleurs de leur génération les maestros les plus puissants de la comédie vous reviennent dans Kër Saner les dofs de la scène. les plus fous de l'espace théâtral sénégalais cey fu ñu jëm cey fu ñu jëm ak Saner ak Mbondoumbe ak Saner ak Ñanku le golden boy du théâtre sénégalais kan moo gën a dof ci ñett ñi à suivre dans spécial Tabaski sur Sénégal 7 dama laa wan ñàkk fulla wala ñàkk fayda wala ñàkk jox cër ba yow respecté surtout yéen aawa yéen jigéen ñi nga xam ne yéen yéen pour yoon yéen yéen seen jëkkër seen borom kër sax pour yéen ay nelawam yéen a ko moom. jënd ci ñaari xar ñu teg comme ni nga ko daan defee chaque année tabaske benn bi benn bi ñu jaay ko def ci suñuy saf safal. yaa tegg lii. waaw. bu ma jëkkati nga ni mbote. waaw loolu mooy. poobar yi man du ma si nekk di sonal sama bopp sax kii ba yeboo nga ko saraxa ko wala nga maye ko xool noo def ak moom man liggéey laa xam guddi jot ma tëdd nelaw jàpp sama ñaam bëgg nga nga am ni nga nelawee baaxul dara ah <laughs> tabaski ci fajar laa ko jël inshallah <laughs> naa la ko indil ba ca kër ga naa la ko indil ba ca kër ga jërëjëf ni ma mbokk ya ah, da ngaa amum xar pour bëgg xar mi tëbu ko ah, waaw loolu kay yow kay xewal la yow sama papa tëbukat bu mag baa ngi nii xanaa dégloo ko Père Ndiaye le grand tëbukat <laughs> dee xar aka ay ci loolu yéen da ngaa bëgg ay affaire ko tarab lu ne loolu baaxul dama laa bëgg rek xam ne ne distance amul danger moo tax amul danger léegi xaar ma commencé ma daal di wala sama karaw gis nga am <laughs> xoolal xar mi lu mu toll ah. tons xar bi maa ngi koy xontu li may jox yow maa ngi koy def mais li xar bi di def day tiire rek. xar bi day tëb rek. tëb mooy lan. xamoo luy tëb. ala gawsu gawsu gawsu kolle neel gawsu mu indi jaasi gaaw xar maa ngay dee ma ngay dee nee ko ma daw si daw si gaaw gawsu gawsu la ilaha illallah di ngay gi dama gënal ma xar yi baax nga ma indil xar mu corona kii ba mu ñëwee ci kër gi di daanu di wàccoog di di di réeku laa la nga ne ma déedéet góorgóorlu ba indi fi cinq cent mille teg loxo nga may def nii di ma jéem a ruube lii yëpp yaa ko def waaye nag auto solution euh, da koy yóbbu lakkul wala da nga koy ceeb bii dafa noir et blanc kii déet euh, déet Cheikh léeg-léeg day dugg ci waañ wi déet xoolal nga ne ko bëy ngay tabaskee kan ci sama yumpaañ sa yumpaañ lu ma ciy wax ak moom lu ma ciy baal di jël décision sama ginnaaw. per bay bi laay bañ a dégg ci kër gi bu wax wax du bëy. waxu bëy laa bëgg nga teg xar mii des ci kër gi moom laay tabaske bëy yi fu mu xam nañ jëm neel waaw. neel waaw yar réew waay. comme maa ngi ndax sama bopp rajo noppi bu jooy noppi bu jooy kilifa nga kilifa da jooy noppi naa. lii la la. ah léegi daal yow per da ngay wër say turandoo ca àll <laughs> am xar ci boppam bu tëboo boo ne ko jàkk rek war nga koo xam man bu ma ko laalul woon sax mën naa xam ne xar mi tëbu na eh, temps yaa ngi imaginer ñu xëy rek bëy yeeg xar yeeg yëpp rek deewandoo loolu noo ko imaginer action bu rafet la de ber gu xar tas na këram ber xar tas na këram ber eh, gu xar tas na këram ber xool fan lay xewee Sénégal 7 point com foofu lay xewee bés kër gi kenn doolu fi nelaw bu Diop maa ko wax ma na yow Diop ci buntu bi. doo ko fi nelawee la dem na yi di ñëw. Mhm. nañu rey xar bi ba pare parce que jël. ban xar nga wax. ko ko ma toj sa waay. eh Diop yow. wi ma jaamite yooyu yëpp day dudd da ngay duddee wax ji den na yet ngi yaay def waay yaa dama koo dagg de. lu lekk dugub ma la lu lekk dugub laa wax. dafa gën ñu lekk dugub moo leen gën fuuf boo ko joxee dugub bi ma rey lu leer laa la wax. reyal dëgg li ma la wax rek na daal xar mi du lekk dugub. dinaa ko ko jox yow xanaa tey nga bëgg a toppatoo xar mi. Modou Lo quatorzième victoire Modou Lo am col la am col am col la jàpp tànk bi am col la dana ko daan na ma. xar mi li ko dese ci dund. Hmm. fii ak trois mois. Hmm. su bruit duggaatee ci noppam lu bari mën na dee ko. oh balaa moo dee ñu rey ko. xanaa ñu rey la yow. xayam mi daa mel ni sacrifice te yee na ni ma téema ko noo ko defee. boobu nga wax eh. kor joor jenge. ja ja ja arrêté arrêté kaay kaay kaay kor joor jenge moom. waaw noppi leen noppi leen ndax moom tan doy na doy na doy na tan doy na fi ma tir bi delloo sama wax ma des la nga dem eh! ja taa yeen ma paar bi tan waaw xaat bi bu ñu ko sàngee duñ ko gaaw dugal dañ koy bàyyi si mbedd bi waaw ñu xam ne am nañ xay kon ñëpp xam ne ñun ñun am nañ xaat waaw tey tabaski ren moom day day neex day day neex jàppal ñu eh, sama day jàmmi tey capitaine nii damay yéegee paan di yow. dogali nga dem ba ma ne ma def ma def la fi kañ tool doy doyul doyul doyul waaw bi na de ndax xay mi. waaw. yow tey yaay sëyam sa yaay. bay ma laa bay ma tat bay ma. sëñ bi mu jël tàmba sama yaay ko yoo ko def maa tooy fayu bu tooba yaay. waaw tey. tey du ko mag du ko si na. monsieur ak madame. sëyam mais eh, bi nga taxaw ci mbir ci bi nga xool rek nga wax ah Fallou Diop ñoo Fallou Diop Fallou Diop mu yor kar bi mu yar kar bi mu yor kar bi mu yar kar bi mu yor kar bi waaye xam na bàyyi bàyyi Diop da yaa ngi xaru de ma ne ma ne lekk eh, ñu eh, ban yow du fi yett xam ne du fi yett xar bi du fi yett ah xar bi du lekk sañ la way bi nga mel ni xar mi yow dama lay rey de ma ne xar mi day lekk xar mi rek kay am droit lekk ci biir kër gi boo leen bëggee loola lekk ngeen wuti ko xar mi day lekk. Tabaski ren gi man dem seeti baar Sénégal.